la ñu sampoon foofu kees ba mu yëngatoo ñu bari daw ñenn ñu làqatu yow yaa sol saw dàll taxaw ni fàng ci penc mi la maa ngi samp nga dëgëral ko kon Mbàkke wóor nañ ñi mag ña jox nañ lay bagaasu mag kon Mbàkke ñun waa kees ñu ngi sant li may wax nag ñu bëri xam nañ ko ñoo ngi lay sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem sëriñ bi wax na ni sëriñ Abo wax na ni dikk géenu dikk dañ lay sant ci di la siyaar ci bés bi Mbàkke ñu ngi siyaar bu baax sëñ Xalil Mbàkke ñoo ngi siyaar bu baax Mbàkke te yeesluwaat bu baax baax da da daa mel ni jotaay bi gën naa taw feexe da da ndax Serigne Serigne Touba ak maam Thierno bi dafa daje nañ si jotaay bi kon Mbàkke suñu xel dal na kon Mbàkke ñoo ngi jégalu ci kàddu yu baax a baax lu ñuy tënk rek lay doon waaye ay kàddug yaar la ay kàddug cant la. ay kàddu yoo xam ne am na fu mu tàmbalee ci sunu xol ñun waa Kees ndax ñun kat sëriñ bi dafa ñoo fekk ñu réer ñu sànku sëriñ Abdoulaye am xam biir xam biti jël jëmmam ji peese ko ci biir ak ni ko mat nga sëkk la nga doon demal teewal nu Kees waaye Mbàkke ñu ngi lay séedeel ni ba fa sëñ Saliou Touré dikkee ñun ñii ñëpp ay bandi yu sànku lañu woon sëriñ bi ñu dimbali tegaat ñu ci yoon wan ñu sëñ Tuubaa bëggloo ñu loolu nag Mbàkke ñoo ngi la koy séedeel tey sant sëriñ bi njaboot gi nee nañu ñoo ngi lay sant bu baax ci taxawaay yi weeru koor gi ñun waa kees gis nañu li nga nu beral ñeent neuvième jour yi buñ la ko waxee maanaam da nga ca teew fulkul masun bi nga xam ne amuñu lu moom ñi ngi gis Mbàkke nga jox ko yitte goo xam ni kawe na sunu njort kon ñu waa kees ñi jël sunu kaddu ak sunu cant di ko jaarale sunu sang bu baax bii mu Cheikh Maam Bousso di ñun sa Saliou Touré bu ñu joxoñoon ab garab ni garab gi laa fi bàyyi dinañu war garab gi di sikkar di jàng xasida ba ba sàkku ngërëmu garab googi rawatina mu bàyyi fi jëmm yu baax kon Mbàkke ñu ngi si jéggalu dañoo xamul fu ñuy tàmbalee xamuñu fu yem bu ñu toogee ci sa wet dañuy gumba tëg lu waaye Mbàkke wóor nañ ni bés bii tey bésub jàmbaar la muy bésub sëñ Abdou te woor nañ ni sëñ Abdou la mu sampoon ba mu rafet yow la yow la yebal nga lijjanti ko kon sori woo sëñ Abdou ñun waa kees nag li ñu bëgg ñun ñun waa kees li ñu bëgg mooy màggal gii bu ñu fa jógee suñuy aajo Mbàkke na faju lu ñu yóotu nañ ko jot Mbàkke dañoo bëgg nga tibbal ñu ci bés bii lépp loo mu a jëfal sëñ Abdou Lahat te nga wóor sant na ci Mbàkke ñoo ngi ci bëgg nga coppatil ñu ci defal ñu Serigne Saliou Touré suñu borom dal ñu njamoot am gii ñu yàgg fi yàgg fi di wér màgg ak yow ñun waa Kees loolu lañ ci fas ñoo ngi jégalu nag ci kàddu yu baax baax ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi. wax ni ko wolof yi di waxee ni doo jën ndox nee na moom bu manee wala mu dëgër yow la mi ngi dolliwaat di fet di lewaat ak njëbbalam ak laxasaayam toppaat ci sa ginnaaw fas yéene doon ab taalibe fas yéene doon baay faal ci yow di sàkku ngërëm mook mboolem ku fi nekkal di liggéeyal sëriñ Touba ci yow. kàddu yooyu la ma soxna bu sa waxoon ëpp na waaye man maamul te wax ci mbooloo lu dul yëkkati xasida di la ñaanal nga yàgg fi lool mbàkke te wér yàgg feek ñun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ne sëriñ Amsatu mi ngi leen di nuyu lu bari. yéen mbokk yi bàyyi koo Cees. ñëw bokk ak moom bis bii. nee mi ngi leen di sant bu baax nee di leen wax ne bis bii kat seen bis la nee na kër gi tam nag seen kër la nee mi ngi leen di yaatal bu baax di leen tatagal nee di ànd ak yéen bis bi ndax xam na ni sëñ Saliou Touré la ko samp foofee ca Thiès. ne ci waajuram wii la bàyyi koo muy sëñ Abdou moo ko yóbbu foofa ànd ak yum ca tofal kon loola samp waajuram la nee ñu ngi koy dëgëral bu baax nee soxna maam bu sa Touré mii itam waajuram la sëñ Abdou Lahad moo ko fi indi. kon sëriñ bi ne am ngeen ay cër yu bari ci kër gi. bu ngeen ko xamee nag ba ànd def nii. sëriñ bi ne sedd na xolom lool. ne mi ngi leen di ñaanal bu baax. yàlla fay leen tuyaaba. ci barkeb Cheikh Abdou Lahad. ne seen tànki ñëw ak seen tànki dellu. ne lépp doon ay tuyaaba. ci barkeb Cheikhul Khadim. nee jërë ngeen jëf. nee na kàddu yi ëpp na loolu sax. waaye ne day bañ a yokk. nee na di <laughs> nee di continuer <laughs> jërëjëf Mbakke kàddu yi kay tuwaarkal la sëriñ bi moom ni mu ko waxee rek noonu rek la jërë ngeen jëf yàlla na defaat at yu bari soxna maam Touré jërë ah, ah, ah, ah sax maa soxna maam Touré soxna maam bu sa Touré jërëjëf. jërëjëf nag baat bu gàtt la waaye ku jëful doo ko dégg soxna maam bu sa jërëjëf jërëjëfati jërëjëf Cheikh Bamba jërë ngeen jëf. wàllum diine it dina am ay émission yu am solo daw leen gaaw ngeen abonné ci chaîne YouTube Tanim TV Tanim yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu wér te wóor.